bu ñu nekkoon ci une république normale loolu wax jooju ku ko wax liñ naan say tànk du laal suuf say tànk warta laal suuf maintenant lii suñ ko bàyyee mu jàll ëllëg di nga gis Bougane dina wax wax ju pire loola te kenn xamul fan la mën a mujj gis nga dañu nekk ci réew moo xam ne dafa am ay fondamentaux yu yu am solo ci stabilité sociale ci paix sociale dañ ko war a gën a cultiver et loolu j'interpelle euh, le chef de l'État pour que nous siffler la fin de la récréation. Parce que cette déclaration, elle est extrêmement dangereuse. bu ñenn ñi jëlee seen jaas yi ñeneen ñi jël seen i ngurdu ñeneen ñi jël seen i yat. moom carte électeur nee na la si jublu de. non non dañ ko layal la mu wax dañ ko layal ka ko layal dégg nga ko. non lobs la ko waxee. dama ne dama nekk dañ ko layal xam nga loolu bu lay la. mais ab jaasi moom mën da nekk carte électeur carte électeur carte électeur la pour nga wax ko de manière très claire nga xam ne kenn du ci nekk di am lenn lu muy lam-laamee carte électeur ngay wax waaye jël leen seen jaasi jóg taxaw ngir défendre troisième mandat c'est quand même extraordinaire euh, man man dama wax sax ne troisième mandat wu Macky duma ci wax xam nga lu tax parce que Macky Sall ëpp ñii ñi ful la en tout cas man ëpp ma ful moom mi nday mbili gi nee na du ci wax man tamit du ci wax ba keroog mu wax fi leneen ci lu dul lu ñuy xaar je crois que ñun it ñun it nañu ñu nangu ñu ñuy ñu ñuy euh, dugal ci ay situation yoo xam ne à la limite euh, amulul réew benn njariñ euh, discussion yu stérile rek la ñuy indi.